itu jàngale woon nañ ko mhm. bu ñëwee di jël di ko jël ki ne ci lëndëm gi jaam bi day yaakaar ni loxo yi ci moom la jëm si baykat bi it gerteem lay dajale pour am ay naaf en ce moment foofu noonu la jaam bi sauté parce que foofu noonu bu fekkee dëkk yu tàng yi la li dale Thiès Diourbel Tambacounda Kolda dañoo am ay li ñuy wax les vipères l'écho-gassère kooku la ñuy wax co en wolof Dakar Saint-Louis Casamance ñu am la vipère heurtante ñu koy wax cie bi zone humide yi ci lay dund euh, bu fekkee ni ñëw nga nag di dajale sa gerte bu la bu la piqué ah da nga naan jaan bi màtt na fekk jaan bi tam yaakaaroon na ni. système de défense waaw système de défense la quoi. voilà loolu la. loolu nag dafay laaj baykat bi xam ko su su su naaf yi dajaloo bala ngay ñëw di jël naaf bi nga xool ba xam ndax am na ay trace trace jaan day direeku nga xool ba xam am na trace yu dugg ci biir naaf bi aussi boo ñëwee nga fëgg ko parce que vibration lañu yëge ñoom amuñu nopp. Mhm. boo ko fëggee da ngay gis ñu génn dem nga doog a jël sa gerte. te te te jaan yëpp ñoo am dangar buy rayee. bien sûr parce que adduna bi dafa am bind ñu recensé dafa am euh, ñaari junni jaan ak juróom-ñaar téeméer 2700. espèces espèces. Sénégal am 63 espèces am 63 espèces. 18 rek ñoo venimeux. 18 rek ñoo venimeux. 45 yi des yëpp amuñu benn venin. si andi nañ fi ay serpent yo xamni ni danañ ko manipuler won len ko. ci ñu bok ci. les 45 yi nga xamni ni amu amuñu bëre. bunt bi tëjuwul la. Ah. Ah non buntu bi tëjuwul. voilà ki moy morsure de serpent l'identification de la morsure de serpent mo nek ni yi am venin yépp yalla suñu borom daf leena a defal ñu am ñaari crochet deux crochets yu nuy injecter sen venin yi amul venin mu may leen ñu am juroom benn crochet japp juroom ñatt yo xamni mom lañuy mëna jallalé li ñuy wan léegi ku jaan mat bul tiit bo gisee deux crochets yi xamal ni jaan bobu am na venin parce que tous les serpents venimeux du monde deux crochets lañ am mais soo gisee 4 à 6 defal alcool nga dem sa yoon bul nangu ku la l'anti l'antivenin parce que dañu war xam ni antidote ñoo ngi ko liggéey prélèvement lañ def ñoo ngi ko liggéeyee le venin du serpent buñ la ko injecté te fekkul venin ci sa deret ci sa deret amul venin bu mu combattre dafay toogee comme dangar mhm. mën na dem man nit ñi mën na dem ba décédé sax mhm. sang bi dana mën a réagir pendant ay deux mois yooyu mais après décès day am parce que amoo vene ci sa deret te yooyu ñoo fi yi am dangar bëgguñoo màtt parce que bëgguñoo perdre seen vene donc kii deux trous yi da ngay koy nettoyer nga ko dem ñu injecté la antidote da ngay gis deux trous yi déet deux trous yi waaw dañ koy dañ koy dañ lay injecté antidote antidote de l'événement waaw léegi nag euh, loolu noonu boo toogee 30 minutes da nga gis gonflement mm-hmm. après nga gis womit jaaree nga xam ni mi ngi exagéré ñu injecté la l' antidote antidote boobu noonu médecin rek moo am droit injecté ko am ñu bari ñu naan da ngay lekk laaj wala da ngay yëy ay petit cola loolu lépp faux li ngay lekk ci sa estomac la yoon ma nga ca ja te dañ ko fay dabu tey la 48 heures nga dellu sa kër mais soo gisee cistru yi bul jël na nga def alcool nga nga nga dem continuer sa liggéey amul venin jaan bi amul dangar hmm. voilà te yooyu ñëw fi yëpp 45 lañu fi bon léegi kii nii pour joxe la preuve. kii nii jaan la boo xam ne du mus a màtt nit. moom la ñuy wax décipeltis lan mooy rôle am ci écosystème bi mooy régulariser la population des oiseaux moom nen lay dundee. day dem ci tàggu picc yi parce que kenn ku ne xam na ne picc yi mbooloo la ñuy doon bu ñuy bu ñuy dem. te bu duggee ci toolu dugub mun nañu ravager lépp pepp ba nit ki nit ñi duñ am lu ñu déq ñu lu ñu lu ñu déqi moom day dem ci tàggu Jelfa ainan jël fa ay nen di ko wàññi que picc am nañ droit vivre mais nag na limité ba duñ yàqal nit ñi mbay mi voilà booy maanaam mun nga jël jaan gi kii amul lu muy def nit kii bu la neexoon tey nga def ko sa poche bi te yor nañ fi yeneen ak yeneen mais deux lañuy la ñuy pour joxe exemple waaw jot Tunkara du dara <laughs> jaan moom Thiaga Babs moom de kii kii du maate voilà kii c'est le python royal kii tam bokk na ci jaan yi nga xam ne du mu def dara nit ku ko gis waroo koo rey parce que parce que amul la du mus a nit te boo ko joxoon benn souris tey dans une seconde la koy étrangler kii c'est benn janax moom janax la amal affaire parce que làmmiñ bi lay détecté. booy maanaam bul jël ko yow tamit. voilà waaw jël ko. oui oui il doit def dara. Eh kii moy python royal. voilà c'est le python royal. voilà. boo demoon ay Égypte ak yooyu pharaon yi yii lañ doon. waaw lii lañ doon yor di ko jox seen soxna yi pour. voilà pour population yi xaw leen am tuuti luñ leen di ragaleeg. ñu demee noonu voilà léeg-léeg léeg-léeg nga ay ay buxaaba yu ko yor. <laughs> waaw waaw léegi moom kii la. moom du def dara nit moom def dara nit. am nañ ci yeneen ak yeneen. yoo xamante ne bii duñ def dara nit. ñoom ñoom duñ def dara nit. Euh, kii bu la neexee nga jël ko. lonk sa baat lonk sa baat. lu muy def voilà l'oncle ça va dara comme li nga voilà moom moom du defee dara. voilà ak yenen ak yenen donc c'est des animaux yo am dañ leen a protéger parce que ñu ngi ñuy ci àll bi. voilà ñu ngi ñuy liggéeyal. macha allah aywa euh, delloo ko njukkal moom sëñ Fall. Eh? oui kii mooy python royal. ko eh. waaw. ñu ne Tunkara da am lu.